Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullah eh, eh, ni ñi ñuy ci Gabon production ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax maa ngi ci jàmm siyaar ngeen fas yéene nag sëriñ bi mi ngi woon fan yi yëpp nag ci dëkk bi Touba dem ci Touba Mbul Kayam incha allah Muhammad Mouhamadul Mountakha Cheikh Basir président Adama fas yéene dem ci dëkk boo xamante ne bu fonk di Touba Mboul Kayal incha allah euh, ñu nekk nag euh, ñoo ngi euh, Touba tiib sëñ bi amoon fi nganam ñaari fan tey jii nag mu war a dem Touba ngan gi ngan am am solo bokki taalibe yi bari daje fi ñëw siyaare si Eh, laata loolu sànq nag mi ngi yeewee eh, euh, dongay tarbiye yi nga xamante ne bi dongay tarbiye yi nga xam ñoo nekk ci euh, dëkk bi waaw ngeen gis ni bi muy ñëw mooy suñ Modou Cheikh Soufal

waaye euh, ngi nuyu mbokk taalibe bu baax euh, dañuy wax ne dëkk bi léegi euh, diggante Tiib ak Mbul léegi am na tali bu yaatu wax dëgg yàlla tali boo xamante ne bii jógee na Tiib Touba Tiib ba Touba Mbul Kayaan wax dëgg yàlla loolu nekk lu am am solo njëkk ci yoonu yoonu suuf la daan jaar waaye léegi tali bi macha allah wax dëgg yàlla lépp jaar na yoon ci tali bi ñu jaar nii ne incha allah fas yéene dem Thank you. ñëpp siyaar ngeen pare mën ngeen not going sondagren. Eh. waaye waaw ñoo tax ñu ngi xaar diggante boobu moo gàttoon tax a jóg yéen ci kaw. bàyyi mu déglu mën na ku nekk ci rajo yi nekku ci ah Babacar ci. Babacar wala nga bàyyi ko moom mu jiitu bàyyi Babacar mu nekk. waaw suñu baaw kay suñu roqee na nga toppal ginnaaw suñu ko waaw déedéet daa topp ci Thank you. Hein? ñu ngi bëgg a dugg nag hmm? sama xale yaa ngi fa ñu ngi bëgg a dugg nag mbul fi ñuy gàttandoo Cheikh Mouhamadou Mountakha Mansour mi moo gagné waat maire Mansour mi maire Mbour Mansour mi waaw mo waaw waxoon naa ko sax waaw waaw jël naa lépp aksi jël naa lépp aksi waaw waaw Thank you. Amen. ñëwee te ñëpp ngeen ci penc bi teeru sëriñ bi sëriñ baa ngi ñëw loolu mooy ndigal bi góor